di leen ñaanal également toujours kooku jàmm ak salaam tey ñoo am mbégte di fi recevoir ki nga xamante ni moom moo di le juriste Pape Sow ngir mun a échanger ak moom ci li nga xamante ni moom moo di euh, tolluwaayu réew mi and ci également ak li nga xamante ni moo di les questions juridiques ngir mu leeral ko euh, ngir rek ngeen gën cee mun a am li nga xamante ni moom moo di une meilleure compréhension lu ni mel nag tey moo waral invitation bi Pape Moussa ñoo am mbégte di janawaat ak yow di la nuyu te di la bàyyi nga nuyoo. la fay euh, soxna Penda Badji mu sell mi sama xarit sama sista maa ngi lay nuyu namoon naa la. naa la ah, sama jotaay yow <laughs> euh, di nuyu ñi nga xamante ne ñu ngi seetaan yëpp euh, fépp fu ñu mën ci nekk ci réew mi ak ci bitim réew di ñaan yàlla lépp lu ñu fi waxtaanee rek doon njëriñu askan wi asalaamaaleykum wa rahmatullah. Mm-hmm. alors fu ñu koy dooree Pa Moussa moo di sa gis-gis par rapport ak réew mi tolluwaay bi dem nañ ci ay élection tabb nañ njiitu réew bu bees lu ni mel nag candidat yi battre nañu douze jours de campagne mu nekk situation bi nga xamante ni daanaka baaxoon di di ko gis mais finalement yi fi aboutir na jaar na yoon ba ñu amal élection yi ci jàmm ak salaam fal président bu bees muy Bassirou Diomaye Faye waaw euh, situation bi euh, exceptionnelle na doy na waar euh, juróon na njàqare ci benn moment mhm. mais daanaka li ci xew ci mujjanteel gi man boog en tout cas bettuma mhm. parce que effectivement Euh, hésité jàpp date geeg tentative de report ak euh, taf yëngal yooyu noonu yëpp mhm. amul lenn man ci sama xalaat euh, lu ko lu ko lu ko lu ko waraloon lu dul xam ni bu bureau vote tëjee moom ba ñuy waññi xob moom dinañ ne wiiw Sonko Sonko mooy Diomaye donc kon euh, effectivement euh, li nga xamante ne tey jii moom moo am li ma ci ki ma ci njëkk a delloo njukkal c'est le peuple sénégalais ki euh, un peuple ki a fait preuve d'une maturité exemplaire réew boo xamante ne les trois dernières années li nu dund ci njàqare problème mm-hmm. bari na metti na mbir mi metti woon na yàggoon na. Mhm. mais euh, am na loo xamante ne à quelque chose malheur et bon et tout est bien qui finit bien. Mhm. Euh, sénégalais wane nañ seen taxawaay. Mhm. wane nañ seen engagement wane nañ seen détermination euh, jël réew mi jébbal ko. Bassirou Diomaye Diakhar Faye comme mhm. cinquième président de la République mhm. donte la campagne était exceptionnelle parce que douze jours de campagne mm, ce n'est pas légal du loolu la code électoral wax mhm. mais euh, situation exceptionnelle mesure exceptionnelle donc euh, une élection exceptionnelle mais un président exemplaire mais justement vu que ni euh, une situation exceptionnelle la ñu nekk ba tax ñu gis ñu battre campagne en douze jours lu ñu mel baaxooñ di ko gis Euh, ginnaaw ba yëf yi dafa retardé wu euh, ñu gaaw ci li nga xamante ni moo ñeel installation président wala dañoo war a rek yem ci li nga xamante ni moom la texte yi bind je veux dire par là bu dee dañ ni euh, di wax li nga xamante ni moom moo di résultat yi ñu yegg ba ci conseil constitutionnel également di ko proclamer candidat yi ci diggante bi ñoom 72 heures pour mun a déposer seeni recours mais lu ni mel bu ñu xoolee délai bi dafa gàtt alors que ñu ngi jëm ci li nga xamante ni moom moo di 4 avril est-ce que dinañ am temps pour que defee président bi mun a installé wu d'ici là. il y aura pas de recours am nga euh, dégg nga candidat bu d' accord. ñoom ñëpp d' accord nañu. ah kon kay recours Amadou Ba moo ci xewoon wane ni d' accord te après voilà gis nañu bi moo leer résultat yi leer mooy li ma doon wax rek man li ma mës gëm mooy Sénégal kenn mënu fee sàcc élection loolu laa mës a gëm que ni euh, vote sénégalais yi kenn du ko détourné tey jii nii loolu noonu yëpp se confirmé donc il n'y aura pas de recours le conseil constitutionnel n'aura pas à traiter donc li ci des fii ak ñaata moom moo ci des donc loolu ce n'est pas problème problématique donc euh, le président euh, bi nga xamante ne euh, moo nekk en exercice il reste en fonction jusqu'à l'installation euh, du nouveau président c'est-à-dire Bassirou Diomaye fay donc euh, fii ak loolu du am problème bu demee noonu. kon daal yaa ngi bëgg leeral ni dinañ ko installer fii balaa 4 avril moom mu toog moom a gouvernement deux deux bul dem 4 sax deux parce que président Macky Sall moom nee na au-delà du deux moom bëggatul toog. heureusement que ni les affaire bi jeexee na premier tour donc euh, il y aura pas de problème du tout amul lenn loo xamante ne euh, fii ak euh, booba dina jur coow donc cour d'appel dina joxe les résultat provisoires au plus tard avant vendredi le conseil constitutionnel va donner les résultats définitifs et que sénégal yi xam nañ le résultat définitif c'est-à-dire Diomaye est élu président de la république loolu moom moo ci amoon solo te loolu moom moo ci doon véritablement l'affaire donc foog naa ne amatul lenn loo xamante ne waroon na jur njàqare sur quoi que ce soit le président Diomaye sera installé euh, le 2 et il va euh, prêter serment euh, le 4 avril ñu def euh, une véritable fête de l'indépendance parce que euh, li ci xew ci ginnaaw yëpp jàppoon nañ ne man boog jàppoon naa ne Sénégal amul woon indépendance on a réalisé en 2000 une alternance mais on a alterné les hommes et pas le système. En 2012, on a fait une alternance, mais on s'est retrouvé avec euh, une alternance piégée, puis pas d'alternance, mais alternative là. Mm. les sénégalais ont alterné le système. ce qui veut dire kon moom ak président dinañ amal seen passation parce que rappelé nga ni président dafa waxoon daal di dem moom day dem. waaw na dem amul problème fi toll nii amatul benn problème. mais bu demee nag bu fekkee ni dem na euh, kon ci diggante bi lan moo fi war a am. non euh, dara amul spend il a problème tout. non bu demee. day dem la de. bu demee te kenn installé gul Diomaye. déedéet moom day c'est-à-dire. day installé Diomaye doog ko dem. voilà ah, d'accord constitution moo ko wax loolu. du coobare boppam de article 36 de la constitution le président reste en fonction. jusqu'à l'installation de de son successeur kon mënul dem avant l'installation de son successeur mm. mënul nekk c'est pas possible du tout donc euh, fii ak le deux moom app bu jàpp rek. Mhm. na installer son successeur rek. après euh, mu mhm. alors démb suivre nga euh, discours bu njëkk ci Diomaye Faye en tant que président de la République ban jàngat nga ci am. il faut nuancer aussi c'était pas le président de la République qui faisait discours. président buy def discours da ngay gis les sceaux de la république derrière lui. ah <laughs> na yëf yi. politiquement il est président euh, sociologiquement sénégalais yi fal ko donc c' le président élu mais il n' est pas encore en fonction. Diomaye ne peut pas prendre un décret le président Macky Sall peut toujours prendre un décret mais Diomaye ne peut pas prendre un décret c'est-à-dire foog mu waat devant Dieu. et eh, devant prestation les de serment prestation de serment boobu noonu bu ko defee ci la soog a ñu installé ko en tant que président de la république mu jël fonction mën a jël décret donc ki doon wax démb c' est un président élu mais pas un président de la république légal c' légitime en tant que président mais légalité moom yeggagul foofu noonu du coup ki doon wax ce n' est pas encore le président Euh, bu ñu ko installé nag ba mu toog discours à la nation tu verras les sceaux de la république. leeral bi nga ci def ni am na solo de Pa Moussa. kon kooku euh, du léegi nag ça c'était la forme du discours euh, maintenant le fond li mu wax man jàpp naa ne euh, connaissant. Euh, Bassirou Diomaye Faye sénégalais yi xam ko aussi yàgg koo gis. mais laataa ñu euh, ñëw laataa ñu ñëw dans le fond. ba tey mm-hmm. ñu resté sur la forme. Mm-hmm. démb nag nga gisee parce que euh, depuis démb critiques yi xaw na bëri. Mm-hmm. ci beneen camp bi nga xamante ni jamono jëlee ñoom ñooy opposition bi. muy benn boo ko yaakaar. ci posture bi ci ci ton bi naka ko ban lecture nga ci am. sur la forme d' abord je le comprends waa benn nouvelle opposition bi. <laughs> <laughs> mais nañu nañu nañu nañu nañu euh, jël seen mal en patience parce que euh, avant ñu yegg ci fond bi euh, je ne vois pas c'est-à-dire li ñu critiqué xaw ma lan la euh, ay sol na lii ak ma ne ñoom nañ euh, def nank rek li ñu fi def démb ak barki démb fàtt teel na pour fàtte ko. Mm-hmm. nañ toog xaar ba ñu def réduction des comptes jéem a xool ñoom ban état la nu bàyyi réew mi mais Bassirou Diomaye Diakhar Faye fi mu tool nii nee naa la. ki doon def boo xoolee sax c'est la coalition Diomaye qui était derrière lui donc ba léegi nekkagul ci euh, euh, fonction wu président parce que installé guñu ko prêté gul serment. kon ñiy critiquer. ñiy critiquer dañoo xaw a dañoo xaw a fàtte boobu boobule boobule aspect. danoo yàqamti danoo yàqamtee critiquer. danoo yàqamtee critiquer nañ def tey rek. Euh, parce que commencé woon nañ leen wax en tant que président war woon waxee bi dafa xaw a man de suivre naa la rajo RFM. sama confrère Makumba Bay di wax ni maintenant bu ñuy rédiger communiqué bi dañu xam ni euh, communiqué bi c' pour le président de la République mais on avait comme l' impression que ni voilà on faisait face au secrétaire national de de de de de PASTEF alors que actuellement. c' est président c' est président oui démission bi ci ñëw. voilà donc kon man mu toll nii euh, nee naa la xeex la rek te ba ñu waree xeex xeexuñu euh, élection yi ñu jógee nii nii nii nii nii euh, ca lañ waroon a lii ñuy def nii yëpp ñu wane ko mais defuñu ko le président Diomaye euh, c'est quelqu'un sur le plan intellectuel très raffiné très structuré alors taxaw naan ma costume bi dafa kii ak nangam yooyu pour man waxu ko daanu ci sareet la bi dafa weng waa waa ma ne ñoom waxu ko daanu ci sareet la ñuy wax ñoom danoo daa danoo jógee ci avion daanoo sareet nan bàyyi euh, Diomaye ca la nga xamante ne fi mu toll nii euh, am na ko comme préoccupation muy régler la problème des Sénégalais il en Euh, les capacités intellectuelles il a la détermination politique nécessaire donc kon yooyu ñuy wax man jàpp naa ne doo wax ko daal saret la loolu lu ci luñ ci attardé wu ci voilà euh, ci cest jàpp na ne tey dañoo war a réconcilier réconcilier euh, li nga xamante ni moo di dëkk bi avec son peuple jàpp na ne également dañoo war a gaaw a résoudre jafe-jafe yi askan bi am jëm ci wàllu lekk bi ci wàllu loyer bi ak yu ni mel hmm. jàpp ne lu ni mel tey jii moom mooy moom mooy moom priorité ci li nga mm-hmm. xamante ni moom moo di euh, fan yi njëkk ci li nga xamante ni moo di nguuram. très bien loolooy wax ji cest à euh, ñoom nañu jéem a euh, xool le fond te jéem a ba génn ci yi ñu nekk ndax lii nii ñu nekk nii moom moo leen yóbbee défaite bii alors donc kon sur le fond de la ah, commune yii nii seen ay détails ay ay waxi daane ci saret ay waxi ndax sa xandang moo leen yóbbee ñu alors donc nañ jéem xool naka la ñuy joyanteewaat seen taxawaay <coughs> baalu àq sénégalais yi balaa ñoo waxati. ah ci nag. li fi nekk ci ñaawteef li ñu fi def ci mbonteef li ñu fi def ci fitna li ñu fi def ci lépp loo xamante ne tey jii nii mi ngi ba léegi euh, ça n'a pas encore cicatrisé donc kon ñooñ euh, ñoom opposition bi ñoom euh, amuñu état de grâce ci opposition nañ am responsabilité. mais dégg nga président biñ koy interviewé ak suñu confrère yi nekk BBC laaj ko ci wàllu mu ne mel moom jàpp na ne amuñu lu ñuy baalu askan mi ndax lépp lañu ñu def dañ ko teg ci charte. charte la maanaam ni ñu def Azoura Fall ci la tegu. ñetti emoji yu Ousmane Diagne ci charte la tegu nañ ma wax ban charte la na gaaw bakkan yi fi loru yooyu yëpp ban charte la nan ma ko wax te ay gor yu set wecc tëj leen ci prison yi pendant autant de mois loolu moo loolu tegu na ci charte waa baax na ñi nga xamante ne tey jii nii seen bakkan lotul euh, ci mbir yi ah ana ñoom Famara Goudiaby ana ñoom euh, Baye Cheikh Koli ana ñoom Pape Amadou Keita ñooñu ñëpp ñàkk nañ seen bakkan penda ana ñoom euh, Baba yooyu chart la tegu bisimilah yeggaguñ ci loolu noonu parce que man jàpp naa ne à partir de septembre assemblée bii nii dañ ko war a dissoudre dem ci beneen assemblée yépp luñ fi woote woon ci lu bon ñu toog xoolaat ko càmbar ko ne si bi foofu ñu xoolaat ko ah oui Euh, yi fi xew noonu yëpp. mais baax na ni ci bu ñu dem ci dissolution boobu ci ci fan la ñuy sukkandiku ci wàllub yoon leeral ko ni prérogative bu président de la république. article 87 de la constitution. président de la république am na sañ-sañ après deux ans de législature lu c'est pourquoi j'ai dit septembre parce que législature bii nii septembre 2022 la ñu ko installé en septembre le président a toutes les prérogatives pour dissoudre assemblée bi assemblée pour man euh, lu ñu war a euh, dissoudre la moom. bokk na ci premier acte yi mu war a jël parce que c' est de Kouramaki on a on a on a besoin d' avoir des députés nag dëgg-dëgg. fi ko bëri crédit. Euh, bon na euh, crédit toll nii.